ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru janvier at mu ne adduna bi di màggal njàng mi rawatu njàngum gune bu dee ci biir àdduna bi wala sax fii ci biir Sénégal am nay gune yu nga xam ni dañuy yeewu ci seen weti waajur boot seeni sac dem ci lekkool ba ci diwaanu Mbàkke moom nemmeeku nañ fi ay gune yu nga xam ne balaa noo am jàmm rek yéeg ci ay saret ndax seeni jur ñoo leen di yabal nu wuti dépense ñi ëpp ci ñoom ñoo yor seeni kër maam dawal saret maam damaa dem ba xam ne maam paa bi war naa mën a toll si retraite jàngul métier quoi ma ma yoroon benn paak këriñ ak mat daan ko jaay si raay bi mu jigéen bi demee ba ba toll si war wut kër ñu jaay ñu jaay ay xar ak ay nag yu ñu yoroon jënd si kër tabax waaw suñ suñ doole xaw a xaw a dem ñu manqué maam fort pour taxaw léegi ma jënd benn saret ak benn mbaam di si daw di paas waaye bu ñu xëyee daal maanaam te tëli bi ñu ay ni ni jaati tegg suuf bi tegg suuf bi ay pax la waa mbedd mom tamit yéen won ni jamm sa kanam fi ay xéer du tur ay ndox waaw di génn seen doom yi ci mbedd mi ñuy taxaw fo di baara sa sareet sareet di leen bëkk ak yoy nonu ñuy tar del waaw amu ci dara ka suñu tool yi ndax dëkk bi dafa dëgël wa yeen saa nak mom yeen yenn nak mom moy lolu nak yeen ndax mom mu neex yeen saa mu nakari waaw tay yi moom dëgër na bu neexé mën nga am 4000 wala 4500 waaye temps yi moom mom yi moom ay 2000 ngay am 2500 xontu xontu mbam mille mille cinq cent la bu dee xontu fas deux mille ci laa nekk nii rek waaye nag bëgguma si dëgg moom waaw waaw ñoo ngi si gis suñu bopp waaw waaye nag yoonu suuf bi ñuy jaar moom daa metti trop. ah gars yi kay ñoo ñu waaj a télé bi te ñun dañuy dagg juuti chaque jour ñu ñuy jaarloo si yoonu suuf bi te yoonu suuf bi daa metti trop waaw. gën gaa neex ay 5000 4000 mil jamono ji nga xam ne yenn gune yi. ñu ngi leen di jàngal di leen yar ci daara yi wala sax ci lekkool yi yii ne ñoom dañu faral di leen tuumaal ak càcc ak ñàkkub yar. tey am na ci sareet yoo xam ne nii moom bu dawul dootuñu liggéey ndax boroom kër lañ yoo xamante ni dañoo néew doole bu ñu waxee arrêt Darou Salam tamit ne arrêt Darou Salam dañoo jubadi ah duñ ne nag ku ku jaboot li nga bëgg sa biir njaboot lépp moom mun ta mun la neex mais du ñëpp. am na ci ñoo xam te ni daan seen doole rek moo leen fi andi ndaw i ngay gis fii ñu dajaloo fii yëpp it ngay gis ñu toog nii ñu naan dañoo dëng dañuy gens dañuy def lii na naam nag xëy na ñàkku ci mais bokku ci suñu biir xëy na segg gi ñu ko mënta segg na mooy bu fekkee ne xale nit daa jóge fële toog ñëw toog seen biir di di gens ak def loole ñu ne xale Darou Salam ah fekk na du xale Darou Salam xale moom lu baax lañ bëgg kenn gënu leen ñii kenn gënu leen kenn gënu leen fii ñu nekk daan fi seen doole dong lañ fi nekkee une deux ñu ne xale yi dañ fay nekk di def lii dëgg la nam xëy munta ñak njabot mbolo njaboot mbooloo fu ñu amku moom am ko jup am ko deung mais ñi fi jup ño ëpp ñu deung waaw ñi fi jup ño ëpp ñu deung yoon légui nak li ci dess moy manam nañ ñu di dimbali di ñu yërem tay xam fi dañ fay nekk daan suñu nyu, toñu ñu waxuñu lu bon defuñu lu bon jup nekkuñ fi di jubari nekkuñ fi di def lo xamanteni nak naka sa lu dul nonala fi ñun ñi ñëpp ay borom kër am amna ci ño am ni seen baay mo leen fi andi ñu fi nekk fi di daw dépense di daw di daw te légui ñoñe bo leen sonalé nan lañuy def ku sa baay nta a dawalab saret bàyyee la ngay dawal nga nekk ci saret bi daw di andi ci kër ga léegi yow soo ko teree dawal saret ba a ce que dina dépense ooti ah loolee nag dimbali am na ci xale yoo xam ne ni tey buñ fuñ toll nii buñ sañoon dañuy jàngi métier me buñ jàngee métier seen kër bàyyi du dox man mii tey jii man man am naa métier man maçon mooy sama métier mais gisuma sama bopp ci ci bi mais ci saret ci laa gis bopp bi ma nekk ci saret ak léegi li ma mën ci saret mu bu ma ko woon fii bari fi ñoo xamante ni tey ji ay boromi métier lañ ñii ay permis lañ yor ay maçon lañ ñii ay menuisier lañ ñii ay mécanicien lañ mais nit ki li ngay liggéey te gisoo ci sa bopp fa nga mën a gis sa bopp rek fa ngay dem suturloo ji fa fii nii wax dëgg yàlla da ñun ne moom leen nañu xaw a sonal jàpp yi ñuy jàpp duñu sonal fi ñu taxaw war a suturla woo duñu si may jàmm dañuy ñuy fay ay 6000 ay 5000 te fii mënoo daw sax xëy ay daw ay 3000 ak yooyu waaw loolu daal nekk na li ñu gën a metti mun sañoon tamit ñu jàppale ñu fii ñu gën ñoo may doole liggéey bi waaw ñu ngi ñu ngi ñu ngi sant daal ñu ngi sant ndax waaw ñu ngi wu moom moo tax tane xëy tëdd maire bi moom buñ sañoon mu jàppale ñu gën ñoo dooleel gën ñoo kiyal daal xam stop bi comme stop bi tournal bi tournal Daaru Salaam bi fi ni tourné noonu foofu dañ fay taxaw di yab ak yooyu mais ah lool kay mun moo ñu jaaxal ndax fii daanaka mën na ne fii mooy arrêt bu mag bi mais foofu daanaka mooy deuxième arrêt bi waaw waaw ñu ngi dagg juuti moom wax dëgg yàlla waaw chaque juuti dañuy dagg cent 150 la woon mais léegi dañ kaa wàññi 100 francs waaw te arrêt bi doon na daanaka Mbàkke arrêt bi si gën a mag booy lim daanaka moo si gën a siiw moo si gën a mag fii mooy arrêt Daaru Salaam. ku ne xam na ne saret moom doon na loo xamante ni ci dëkk bi mën naa ñu bëriñ fi yow waaye teguñu leen ñuy dara. mu ñu ñu dawal sereet mom manam manam jàppun dal sereet kuy kuy dawal sereet yow yow yow yow nit ni dal ndax li ni jankotel bëri na lool. mooy ñun ñi nga xamanteni yalla dogal mom mom ter la yor ci dëkk bi manam nit ñi lu leen leen wax di ñu dëggal fu ñu di ñu waxal luñu waxut te ñun amul leen luma sereet tam yàggante leen luma sereet ndax ñun sereet lañu yalla jaglél te ñun loolu ci lañu tedd ci lañu ci lañu yor suñu kër ci yor suñu jabar tam kon mom la ñu am itam kon ko xébal tam manam Ah, ñun mom mom la am itam amul leen tam li la am te ko ni jappal tam ci li nga ni jappal moy sareet ndax mom lañ bëgg ñeneen nak ñom lan am mom señ borom mo na ko jagleel ñu nan mom sareet lan am yalla mo na ko jagleel kon te mom lañ gëm inshallah allah. waaw suñu diggante mairie Mbacke amul jafé jafé ndax ñun li ñu war ñu ngi koy def moy dag juut lañ wax saay bu saay bu xëyee ñun danañ jël suñu 100 francs dal dag juuté wér 3000 la kon fofu ñun amuñu fi jafé jafé baax baax xana kay ñom li nga xam di la war la war la ñom digënté ak sareet ak ñom maam defu na ko moom ndax ku ne xam na ne saret yi ah maire bi war naa taxaw ci kaw saret yi war naa taxaw ci ñi nga xam ne doo saret war leen jox ak xam ba mat sëkk war leen jox wàccuwaay ba mat sëkk ndax ku ne xam ne dëkk bi ku fi ñëw xam na ay saret ñu ngi fi te saret ngi dugal xaalis ci maire bi baax a baax ndax bu saret yëpp gerefoon tey jii mën naa ne maire bi dana xaw a doy waa trop ndax saret bu ne joxe 3000 xool ñaata saret mooy doo ci dëkk bi te ku ci nekk weeru dee 3000 la. moo ne gune yi du dawal saret kese def ci diggante Touba ak Mbacké ne boo demee foofee ci Mbàkke di fa fekk yeneen gune yu nga xam ne saa su ne li ñuy xëntoo mooy gis oto bu nu raxas ba mu set nu fay leen ci téeméer jàpp ñaari téeméer. ñun moom fii la ñuy liggéey fii nii la ñuy liggéey fii la ñuy daan seen doole fii la ñuy def lépp mais mënoon nañoo dem buntu cinéma wala fenn toog fa di gens mais defuñ ko fii nii lañ ñëw toog fi di fi liggéey fii am na ñu fi dugg jóge fii ba Moussa am ñu jóge fii ba Touba am ñu jóge fu nekk ñu ñëw fii di fi liggéey mais ñun leen dong moo ñu mooy ndox mi ñuy tuur fi ah suñu waxee ñu ñuy ëpp doole wala dara ñu loolu dong moo ñu métti ak robinet bi ñuy def fii ñu defal ñu ko. maire ñoom suñ fi ñëwee seen intérêt moo leen fi indi ñëw raxas moom set ñu jaar ni dem seen loolu moo leen fi indi lin daal leen moo mooy ndox mi. waaw ndox mu bon mi ñu fiy tuur ak mbéy ak mbéy yi ñu fiy sànni ndégg naa waa côté bii la nii la ñuy génnee nii la ñuy génnee ñoo di ko fi ak mbéy yeeg yëpp te fii ñu fi nekk ëpp nañ vingt personnes te ñun ñëpp fi la ñuy liggéey l'environnement moom dafa baax si doomu aadama. li ci gën a doy waar weesu wul nekkoon gune yi jàngunu suba si ngoon si waxi nopp te it bërëb yi nga xam ne foofee la ñuy dem di daan seen doole dañ fay jànkoonteel ay jafe-jafe yu métte métti ay jafe-jafe yu nga xam ne day faral sax di gàllankoor seen wër gi yaram. Eh, léeg-léeg eh, kër yi ñu wër nii danañ ñëw fii bëgg fee sànni ay méed ak yooyu noonu mais dañuy wax ak ñoom mais dañuy ñàkk de respect loolu joxuñ ñu benn cër te ñun dañoo ñëw fii pour daan suñ doole mënoon nañoo ne si mbedd yi di sàcc wala ñuy agressé mais defuñu ko dañoo ñëw fii di liggéey di wut lu ñu am yóbbu suñ kër ndax waa koñ bi manko woon nañ ne dañ ñuy génn fii waaye sëñ Sidi Mbàkkam Daaru Salaam yàlla na ko yàlla xaara àjjana yàlla na ko yàlla yërëm te xaara ko àjjana ginnaaw tey buñ nekkaatee fii di liggéey yàlla ak moom la waaye nag ñun moom ku ñu jàppale tamit ñu jël mais dara yëkkatiwuñu lu dul liggéey daal waaw maire bi daal yaakaar naa moom bu ñu mayoon fii benn robinet rek defaral ñu mbaar ñun ñun li si des moom ñun ñoo si war a xar suñu tànk Dubai pour mu jàppande mais ñaar yooyu daal daa xam ne bu ñu si dimbale woon lay gën a baax. mais mosuñ fee ñëw pour pour pour euh, poser ñu benn question si liggéey bi. waaw journée bi léeg-léeg léeg-léeg da ngay am junni waaye léeg-léeg da ngay xëy téeméer sax da lay të. ñu ngi ciy gis suñu bopp baax. baka bax ñu ko ci gis bilaa non xam nga rek parfois ma dik ma demee kër ga may tëdd nelaw non rek ta amul ben sens motax may dik di liggéey ci waaw waaw ma ngi ko ci gis ma ngi ci gis sama bax mom di ci jënd sama bop ay bagage ak yoy non yépp mais nak ñin mom dañuy ñaan président ren rek la mu suñu defaral ñu fi ay rewina yo xamanteni dañ ci mëna duyee ndox ndax liñu dem ba fa ba teen ba di ci duy jën ndox ak fi ni xamna sori na ba nopi ndox it salte ñuy tuur fii nii ñu jëlé ko fi ngir yalla ba paré défaral ñu fi yaa gëna xam mu sét ak mbalin miñ fi tour ñi interdit ko ak yooyu noonu ndax gar bo diké taj ñu raxas ka di ay mbam lañu jappé jàppee di fi tuur mbalit ak ndoxi salté yi ni xamal li lii jaaduwut nañ dañu dimbalé rek ñu jàppale ñu. ñuy raxasee jafé jafe ci am muy ndox mi ñi tour waaw ak mbalen miñ fi sané yépp ñu nañu balé ba son té ñom nañu tour ndox mi bu ñu raxé auto day gëna takkar sax bala dem ñoo ci gisun bop bopp bu baax journée man nga am ay 6 war nga am 7 000 lépp waaw ñi ne ñu dimbale ñu ndox mi fii tóor ak remina waaw ñun kay dañoo bëgg ñu may ñu fii xam nga fi moom amut kay damu dara dañoo bëgg ba ñu may kayit ñu wutal ñu wutal ñu mën a ñoo wutal suñu bopp remina xam ne bayal boo xam ne boo duñu fi jëlee luñ fi mën a defit duñ ko ñàkk loolu lañ bëgg waaw ñu jàppale ñu waaye fii nii bañ koy bale bam set di di jël saret di fay waaye nit ñi dañuy tuur ndox mi bu oto yi génnee ni te ñooñu noonu bu ñu mënoo leen wax dara ndax fii nii amul kayit amul dara ko fi waxit waaw da nga koy tooñ ak bëgg nañ bu ñu mayee fii ñu wut robinet bu baax waaw boobaa nga xam ne nit ñi ñu liggéeyal boobaa seen xol dana sedd wut fii ay banque lépp fu ñu toog ak mbaar ñu may ñu fi ñu defar mbaar muy lu doy waar lu nga xam ni kon ñu ngi koy seetlu ci dig digal bi bis bii nga xam ni kon dañ ko jagle njàng mi ak njàngale mu mel ni kon am nay gone yu nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi di jànkonteel ay jafe-jafe yu métte métti war a yeewu saasu ne wuti dépense ngir dundal seenum njaboot doonte ñoom ñi ci ëpp amulu fukki at ak juróom ma ci wet gi ñi nga xam ne ñoom yàlla xéewale na leen mën a dem ca daara ya wala sax ca lekkool ba ba léegi ñoom it ñu ngi jànkonteel ay jafe-jafe rawati diggante Tuubaa ak Mbàkke oto yi ci boppam dañ ciy booxante mën a sax faagaagal seen bopp ngir mën a egg si fi nga xam ne mooy seen daara loolee daal di lu nga xam ne mi ngi bëgg yàgg ci biir askan wi ñëpp di ci teg seen gën te ak léegi kenn jéemul indi ci ay saafara